Bébé Dialy Bébé Dialy. tey ma ànd ak sama consultant Seydou Awa Diaw kenn du moom maam jaara baal fi ngay jaar baal ñu xuloo la yow kon sama consultant doxalal ñu dem. ngeen def Bébé Dialy ak Takale Senior. ak Takale Senior Bébé Dialy పెళ్ళి ఆ పెళ్ళి మోకే మోకే ముళ్ళు కర్పిడి తమాలేరు సీనియర్ మోకే మోకే ముళ్ళు న్యూళ్ళు Bonne réflexion. Benedetto Frédéric Diamant. Ah, Tabaler Diar moo féete leader. léegi dafa bàyyi. il faut bàyyi. troisième combat. ñu préparé. léegi pour l'écurie Rebeuss ak Zoss. léegi noonu Aïdara Karim. diggante Leer Junior ak Bébé Diène. Karim. éliminé. arbitre bi sifflé na. Bébé Diène reculé na. Tapha Leer Junior Bébé Diène. idi Bébé Diène nag jarbaatu mbër la ndax Diène Birame Thion numéro 2 mooy nijaayam. waaw ah, Tapha Leer Leer Junior ak Bébé Diène. Bébé Diène mi wàcc. ñun leer junior bébé Jali. nee na noonu. bébé leer sànni na. bébé na. dafa leer junior bébé Jali. leer bébé Jali. bébé Jali direeku di daa mel ni Jali jàpp bi la bëgg de. bébé Tapha Leer si Jali. Tapha Leer moo ngem ngem lu ñuul Jali moo ngem boo Lagos bi. Tapha Leer a ngi wër wër la bébé Jali a ngi tiré ko rek di fa toog. bébé Jali Tapha Bébé Diagne Tapha Leer. waaw Omar ñaari xale yi dañuy lëwtoo rek. Bébé Diagne saa bu tiree ko topp ko Tapha Leer day réglé Bébé Diagne sànni na. Bébé Diagne jàppante bi la bëgg. Tapha Leer dafa a appel mu ñëw. waaw na ko. Bébé la mu kor kor ko si loos bi. ñoom ñaar ñëpp kenn jàppul fi ñu toll nii dañoo ko resante ay rek. ñaar daal leer. dafa leer ñu dem a war. diggante dafa leer a ngi pour jàpp. bal na ko. bal na ko day fudoog moom wala. Tapha Leer am na ngeem. diggante Tapha Leer Bébé Dialy. Tapha Leer a ngi door. Tapha Leer Bébé Dialy. ngeem bi Tapha Leer téye moo ko sonal. moo ko sonal. Tapha rokos na. teg loxo bi nga yaakaar na a bët leer saa leer jàpp na fu baax. benn loxo baa ngi si ngeem benn loxo baa ngi si kaw. leer bébé jëli. dañoo xaw tolloo doole nag moo tax seen combat di métti. waaye na ëpp masse mais masse du doole tamit de. masse leer ak kay bëgg a fiir. loolu tamit jàpp na. mu ne am na ngemb. Bébé Dièli si Senghor bi la tee. Bébé Dialy door na. combat daa gaaw léegi. mën leen ñu ko wax. bu leen ñu fi tardeel. daan eh, na ko bët dafa leer bañ na. dafa doole moo ne seen combat métti. waaw. xale yi dañuy a bokk na am na ngeem. waaw xool. Bébé ko tànk. mbaar na ko Bébé Dialy mbaar na ko. Oh, da ngaa pàcc Bébé Dialy daw ràcc. mbaar ko loxo bi tekkeen. Omar xale yaa ngi am na ngeem. mu ne am na ngeem ñoom ñaar. dafa leer Bébé eh, Dialy. Bébé Dialy li mu dóorlee da ngaa téléphoné. tànk kenn du ko téléphoné. tànk kenn du ko téléphoné. dafa mel ni Bébé Dialy diis na de bi nga saa waay dawee pàcc am na lu mu fa fekk. waaw daa daw ràcc rek faxu ko. waaye te dafa leer daw tekkee ko. Bébé Dialy dafa leer. Dafa leer Bébé Dialy. Dafa am na ngeem Bébé Dialy jàppul fenn. leer ngeem li mu ndax baax na mu ngi tas de. Dafa leer bi taw bokk sama leer. Bébé a ngi rokos pour Dafa leer sigi. Bébé Dialy sëngoon la jàpp. Dafa leer jéem Bébé Dialy mi ngi rokos. rokos. porte na ko bañ tap na ko balaa ngeen jéggi ko. Bébé Dialy jël na ko Bébé Dialy ba si kaw Bébé Dialy daan na ko. Bébé daan na Tapha Leer numéro 2. Bébé daan na Tapha Leer numéro Idi Bébé Dialy dafa mel ni ndaanaan ñaari xale yaa ngi noonu Léopold bu sos bu jam ñaajo sos bu jam ñaajo nag daf ko indi waaye kii di Léopold bu Rebeuss caatu Rebeuss ko indi mu nekk ñaari xale yoo xam ne ñaari xale yoo xam ne lamb dina la yaakaar ñu nekk ay adversaire de taille si poids si lépp si poids si lépp waaw ñaari xale yaa ngi noonu Omar doxalal ñu dem ma ne Omar doxalal ñu dem Omar doxalal ñu Léopold bu Rebeuss caatu Rebeuss mu indi waaye Zoss bu Diamniadio dab daan moo ko indi. muy Ibou Diamniadio mu nekk ñaari xale yoo xam ne ñaari xale yu doy waar la. essai essai Zoss bu Diamniadio ëppul poids Léopold bu Rebeuss. lamb la daal loo si mën a xam loo a xam daal Omar lamb la te ñaari xale yi dañoo tolloo ëppante wuñ poids ëppante wuñ taille. léegi booy bu rëbës daal mel na ni daal moom moo xaw a gën a. waaw moo xaw a sut tuuti rek. Ah. waaw dafa sut tuuti rek. aywa Kojar a ngi noonu Kojar xoolal ma Kojar. déet bu baax daa leen wax li lamb li lamb bañ. waaw Léopold bu jëm ñaajo. Léopold bu Tébési ak sos bu jëm ñaajo. Léopold bu Tébési ak ñaari xale yoo xam ne. Idi Caatu ba suñ tool yi mënatul toog mënatul taxaw. waaye daf daan tamit fu mu toog mënatul. arbitre bi mais Léopold mais. mais Léopold lu mu nar nii. waaye Léopold sos bu jëm ñaajo. sos. Léopold sax bu jam ñaaja ale yi na ko sos génnee na ko jam ñaaja benn yoon waaye Léopold est-ce que tuddeewul boppam Léopold André boo nekkoon drapeau chef de l'État en 2007. daanaka bu mag a ngi waaw kooku koy nuyuwaale au passage Léopold boobu. waaye tuddee na boppam daanaan waaye Zos tamit tuddee na boppam Zos di mag Garga ñu koy nuyuwaale moom tamit mais Léopold jokkaas na. jam na ko doon a Bobo daan na ko. Bobo daan na inna wali yàlla jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba. jaroo laa ko maam Cheikh Ibrahima di sant sama sëriñ sama wasila sama yaakaar tey ak ëllëg sëñ di xadi Fall di nuyu waa Robos war na alxuraan jàpp nañu ci combat bi dañu ma entraînement lu métti war ma bëre waaw mberantaan la rek mberantaan man moom damay bëri rek dama koo daw door mu daw di ma dugg si ma jël tànk bi mu daw di jël tànk bi ma kot ko weeru ko bii mooy premier combat stade mais def ba reeman bëri naa fa à ah, huit combat six victoire doo defar mooy loolu mais maa sama yaay barki yàlla gars ma jàppee ci bi son nañu torop billahi samay mbokk yëpp ñëw nañu jàpp man bu ma limee Elzo maa ngi koy bëgg ak ca Wos Bandi bëgg naa sama gaay yi ak billaahi ñoom Karbala Modou Diango borom piano yi barki alxuraan gaay yi jàpp di sant sama sëriñ sëñ Moustapha yee di sant baay ma ñaanal ak yaay ma ñaanal ñoom ñëpp maa di sant billaahi mooy di sant Ndiaye sama doom bee maa koy sant. mbër sama mbër a ngi moo jàpp ci combat bi laaxi may ma contact yu metti mbër doo ñëw far iri na ko gars yi bàyyi xel na ko gars yi bàyyi xel champion la nañu ma jox liis njaaxu ma bëre ak moom barki alxuraan nañu ma ko jox bu dikkee dinaa ko duma dinaa ko daan billaahi benn moo ma nekk lan moo ci laadu. laadu ah, moo nekk nii. laadu. waaw benn télé moo yende bende ñaay laadum ñi jóge Tiwaawan Pël ñi jóge Yaraaf laaduma jóge Yaraaf arbitre bi neen waay li nangool li làmb bañ diggante laaduma bende ñi idi ñaari mbay tolloo nañ taxawaay de ñaari adversaire la ñoo xam tolloo taxawaay dañoo tolloo maas dañoo tolloo lépp maa a sëg si taxawaay waaye si ñoo tolloo ñoo maas arbitre mu ngi cat Ladoum a ngi def tekk di ko yaa ngi noonu Ladoum Ladoum ko Bentele def tekk ci suuf naa suuf Bentele ak Ladoum yaa ngi def placement de daan ah eh, mais xeex nañ jàppante dañoo xeex rek jàppante ñoom ñaar waaye Béntene Béntene am na jàpp bu ñaari gémb la am waaye Ladoum amul ja amul gémb. jàpp benn diggante Ladoum ak Béntene Béntene jël na ko Béntene jël na ko. Béntene daan na Ladoum Béntene daan na Ladoum.

Pape Thiam a ngi fecc Pape Thiam a ngi fecc door Pape Thiam a ngi fayu internet jàpp na ngeen Pape Thiam jàppul internet Pape Thiam daan na